seen agence de voyage Minan Travel nekkee ci diwaanu Parcelles Assainies unité 7 ci wetu kaas bi dendee ak pharmacie Baraka bi yëngatu ci jaayum billet d'avion réservation de billets réservation d'hôtel demande de rendez-vous umra ziara Fès ay assurance de voyage assurance auto wala moto ba ci sa transport aéroport seen numéro téléphone 10 78 171 0303 wala 76 271 13 13 seen agence de voyage Minan Travel moo may li ci yéene kaay chers internet yu enquête dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës yett yi ñu commencé ko Walf Quotidien bi desuwaat ci procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr bi ñu xam ne fitna gi ci mujjee am de teewul na mujj nañu renvoyé procès bii ba le talaata bi ñu jëm ak lu mënti xew dinañ àtte nag dossier bii yëglekaay bi dalal maître Ciré Clédor Ly di avocat Ousmane Sonko muy xamle ci biir yëglekaay bi ne Sonko kenn mënu koo forcer mu daal gendarme yi daal di reculer de ba léegi si laa la wax ñu ci xeex bi moo xam ci diwaanu Ziguinchor lu quotidien yéenekaay des soit ci procès Sweet Boutique gi yéenekaay bi ne démb daal séance bi dañ ko mujjee déféré juge bi renvoyé audience bii ba le 23 mai yi moom ba léegi si jeexagul ndax dafay continuer ci semaine bi yëpp ba le 23 mai lii moo jaralaajte ndaxte démb ci ngoon Ziguinchor yëngatu woon na lool Sédhiou tamit yëngatu woon na lool mën na la defante gi nga xamante ni ndaw ñi ñoo ngi koy defanteeg takk déet l'observateur en tout cas procès bi renvoyé nañ ko dee waaye commencé naa indi ay conséquences nag ci biir dëkk bi même ci biir tribunal ba la wax gis nañ fa xëccu xiiroo ŋaayoo gu métti goo xamante ni amoon na ci biir tàkk der yi jénikaay bi deesuwaat ci lan moo xewoon démb ca biir tribunal méthode gi nga xamante ni way juru xale bu góor bii ñu rey ci diwaanu Kër Mbay Fall am na ko ndax information yi bay dégg gëmu ci dara jénikaay bi deesuwaat ci siège yu daal di renvoyé nag procès bii ba le 23 mai 2023 en tout cas yéenekaay bi xamal nañu ne bépp acteur boo xamante ni tudd nañ la ci coow lii démb teg nga sa tànk ci douane tribunal moo xam Adji Sarr la Ndeye Khady Ndiaye capitaine Touré ba ci masseuse yi ñoom ñëpp laa la wax wuyu si nañ juge bii ni ki démb ci tribunal bu Dakar ba mu des mennam Ousmane Sonko moom dong moo tegul tànkam Dakar leneen li ñu seetluwaat démb ci biir tribunal ba mooy defante gi amoon ci biir takkadeer yi rawatina nag élément GIGN bi nga xam ne moom mooy garde Adji Sarr mën na la ñu nekkoon démb nag donte dal commencé woon na am ci ndakaaru njaay waaye ci fajar gi ba ci ngoon si laa la wax ville morte lañ mujjee am maanaam kenn ubbiwul sa magasin amul kenn ku xëy liggéey yi même école yi sax dañ leen a mujjee tëj les écoles yéen kay en tout cas bi ñu jëm à tout moment nag Ousmane Sonko mën na ñëw ci biir tribunal bi fekkee si procès bi waaye maître Youssou Camara li mu xam moo di Ousmane Sonko recevoirul ba léegi si convocation condition yi war pour mu yegg si fii ci tribunal bii laa jàpp na Ousmane Sonko mii dafa daw wàqet nag ci procès bi nga xamante ni jàppoon nañu ne moom leader Pastef bi yàkkamti woon na ko lool ndax bu ñu gisoon ay sorteem dañuy jàpp ne dañ ko tuumal dong nag waaye amul dara lu mu def ci liñ koy tuumal Maître El Hadji di xam la ci biir yéenekaay bi ne waaye ca dëgg-dëgg nag am na ko tiit bu doon làmb ji tey la làmb ji nañu jàpp na am na mbër mu daw wàqet te mbër moomu du kenn ku dul Ousmane Sonko Vox Populi moom de lëjma dossier bi nga xamante ne ni lu mu dee dee 471 am na ko ay élément audio ba ci ay vidéo moo composé dossier Sweet Boutique gii yéenekaay bi ni boo ci boolee Adji Sarr ak Ousmane Sonko muy yoo xamante ne ni danañ yëkkati kàddu laa la wax ci procès bi boo boolee ñoom ñëpp nag seeni avocat toll nañ ci juróom fukki avocat maître bi ne ñun def nañu demande renvoi ci procès bii waaye nag talaata bii di ñëw lay leer ndax dinañ ñu ko may waaw wala déet li ko waral du leen lu rek ñu gën a am temps nag daal étudier dossier bi nga xamante ne ni amul nu mu fa ngandeewul ndaxte 471 la am ñu vérifié waat audio yi nga xamante ne ni am na ci dossier bi ba ci vidéo yi lii moo tax ñu daal di demander renvoi pour ñu gën ñu may temps lu mu néew néew ñu am jours pour mën a étudier dossier bi Adji moom di xamle ci biir yéenekaay bi ne man noppi naa tey fekkoon ne tey lañ ñu pare naa pour jàkkaarloog Ousmane Sonko te ni garde ci Adji Sarr coow gendarme ni image yi boo koy xool laa la wax sa xol dafay jeex jommi jombeen ngay def ci xale yi nag la def balaa di taal biche yi la libération yéenekaay démb réew mi yëngatu na de arrestation yi mais ne tulleeg ma laa la wax ci biir parti bii di Pastef yéenekaay bi ne gannaaw responsable communal bu Pastef géewul boo ci boole Ousmane Sarr activiste jàpp nañu ko Mati Sarr ñaa journal liste jàpp nanu ko Modou Ndiaye jàpp nanu ko Omar Sakho jàpp nanu ko Yoba Balde jàpp nanu ko ba ci lutteur bii di ama neex ñoom ñëpp nag fi mu toll nii ñoo ngi ca biir kaso ba te ñu ci bëri nag li ñu leen di toppee moo appel à l'insurrection ba ci offense au chef de l'État ak jël ay kàddu ñàkk teggin teg ko ci magistrat yi en ba jamono ji ñuy wax ak yéen arrestation yi arrêté démb démb rek laa la wax li ñu arrêté ci ay ndaw yi kenn xamul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 diwaanu Italie jokkoo leen ak El Bachir Faye numéro bi di plus 39 338 916 03 90 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Espagne jokkoo leen ak Mor Sow numéro bi di plus 34 602 19 07 38 yéen ñi nekkee ci Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al Maktoum mooy indi nañ leen ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy yi nes nes kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al ndaxte kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al Maktoum